bés bi nga xamee ni moom lañ doon sargal ndongo daara yi gën a xarañ ci Fass Boye nekk ca Daaru Xudus département bu Tivaouane kuréel gi ëmb élèves yi ak étudiants yi nekk ci gox boobee neexal xale yooyee Fass Boye ak likoor nekk na gox boo xam ni bii xale yi nga xamee dañu war a yi dañuy faral nekk ci tool yi wala ñu dem géej bésub sargal bi tax na ba ñi nga xamee ñoo nekk ci kuréel googee ëmb élèves yi ak étudiants yi di waxtaane li ni mel Alassane Faye président amical bi lañ ciy déglu bi durant l'année scolaire bi di jàng ba tey yàlla dogal ñu am résultat résultat boobu ñu am nag moom la ñu génnee pour teg ko ci kanamu askan bi won ko nit ñi élèves yi ak étudiants yi ñu ànd tey pour war a sargal suñu ay ndaw war leen a dimbale war leen a taxaw li ñu ci jublu rek pour ñu gën a xam njàng place ban la am ci société bi ak fi jamono toll tey nga xamante ni bii dañoo soxla lépp luy doomu adama di soxla soxla nañu ay ingénieur ay docteur te loolu nag dafay jaar xale yi ñu xiirtal leen ci njàng won leen ni beneen genre métier am na mais jàng tamit am na jàng boobu nag la ñu bëgg ñu jublu ci loolu moo doon sababu tey pour primer leen. étudiants ak élèves yi nekk ca Fass Boye yéeyaale yàbbi ci seen i jafe-jafe yu tar yi nga xam ne moom lañu jànkoonteel wàllum orientation yi ak dëkkuwaay ci université yi rawatina ponk yi ñu leen di waral di xàllal pour ñu xam fa ñuy teg seen tànk ba tax sax ñuy sànni ki yoo jëmale ko ci kilifa yi ngir jafe-jafe yooyee am saafara Moussa Sow secteur général amical bi lañ ciy déglu. jafe-jafe bu gën a mag bu étudiants yi di chambre di ko fay at bi yëpp pour étudiants yi fii nag da ngay dem Dakar xamoo fa kenn amagoo fa logement étudiants yi dañuy obligé dañuy fanaan ci couloir yi ñii dañuy dem sax ba dañuy bàyyi jàng fii am nañ fi des exemples yu bëri ñu dem ba bàyyi jàng parce que tout simplement amuñu ay logement à part tamit mooy comme li étudiants yi di jànkonteer yëpp presque même problème bi lañ am mooy ay affaire orientation yi. Tivaouane Babacar Sow dañ ci jokk kenn fii